ànd ci dama ànd ci choix bi puisque jàpp naa comme la majorité des sénégalais que ñaar ñi ëppoon profil mooy Amadou Ba bi ak Mohamed Boun Abdallah Dionne donc ku kuñ ci mën a tànn dama ci ànd donc ànd naa ci choix bi en tant que militant d'abord de la l'APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais ànd naa ci choix bi compte tenu des qualité propres personnel de celui qui a été choisi ma bëgg a wax foofu nee lan profil bi ñu choisir bi président de la république choisir baax na su maa ngi dégg ñu ñenaan oui la Benno Bokk Yaakaar a choisi no Benno Bokk Yaakaar choisirul benn nit moo amoon carte blanche pour choisir même bu fekkente ne consulté na ay nit ñooñu bokkuñ ci choix bi dañu joxe avis boo xam ne daf ko intégrer pour choisir c'est le choix personnel du président Macky Sall te li ma jàpp mooy il a bien choisi li tax ma ne il bien choisi mooy booy xool Amadou Ba homme d'État la kenn du ko waxati parce que am na fonction yoo xam ne boo ko occupé sur de nombreuses années defoo ay vagues déggul na ci scandale déggul na ci coow. xuloowoo xeexoo tendance oo jéemoo ut camp pour nekk leader ça veut dire que homme d'état ga yem na ca place bañ ko tegoon fonction yi ko joxoon assumer na ko te fi mu jaar yépp am na résultat beneen aspect mooy lan boo nekkee homme d'état war nga mën a nekk homme politique aussi bu fekkente ne dañ la tànn pour nga nekk candidat d'une coalition ci élection foofu aussi jàpp naa ne am na ay qualité d'homme politique puisque euh, analyse bi ma def te mu nekk ma basé ko sur des faits récents mooy euh, Amadou Ba bi ñuy poser le problème du candidat de Benno au niveau de Dakar gis naa ne traversé na euh, zone boobu avec beaucoup de maturité et de hauteur mënoon nañ ko dégg ci ay coow ak ay xuloo moom ak ki mu jàkkaarloo woon muy Ablaye Diouf Sarr mais ci tey ak dal la traversé. Euh, mais période boobu mais période boobu lu ko lu ko ci war defu ko ci parce que ñu ngi wax ni. bu jàppoon bu jàppale woon Ablaye Diouf Sarr lu mu waree. pour mu gagné li nga xamante moo di mairie Dakar bi a investir si à 100 pour cent moo tax ngeen waa yéen waa benn bokk yaakaar ngeen perte Dakar mais foofu comme que état boobu ko. moo tax loolu euh, mhm. loolu waxuñu ñàkk la Amadou Ba jàppalewu ko kooku moom kenn waxatu ko jàppale na ko la mu waroon def def na ko bu ñu bëggoon nag mu def lu ëpp loolu ça veut dire dañu bëgg mu def l'essentiel du travail. Mhm. nekkuloon candidat bi kuy jàppale fa nga fa nga war a yem. foofu la yem bu defoon lu ëpp loolu ñu ne am na lu muy nangu loo xam ne du prérogative am Ablaye Diouf saar mi candidat moo ko moom moi je trouve que la mu waroon a def ci jamono yooyu def na ko